professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi lay nuyu. Fatou Thiam Ngom maa ngi lay nuyu di la siyaare maa ngi nuyu euh, auditeur ak auditrice su Rewmi FM yëpp. ak askan wi yëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay am mbégte dalal ci matinalu réew mi tey alors euh, professeur euh, président de la république euh, ci discours bi mu def ñetti fanweeru avril bi daal dinay ñëw ci programme bi nga xam ne taxawal na ko ngir mën a xeex lépp li nga xam ne loraange la buy tukkee ci coronavirus loraange yooyu jëm surtout ci wàllu koom ak xëy na dundi nu askan wi ginnaaw bi nga ko saytuwaatee am temps tuuti ban jàngat nga def ci mesure nga xamante président annoncé na ko euh, le 3 avril ci discours am. Euh, jàngat bi ma ci def mooy bi ma def rek bi mu waxee ba pare moo di ne dama yaakaar ni mesures yi mu proposé mesures yu baax la hmm. parce que bu fekkee dina ne dafa ne dina fexe ba nga xam ne liggéeykat yi seen salaire yi kenn du ko dagg génne ko mais loolu am solo la ndax il faut ñu dund bu ne aussi njëkk yi dañu remarqué nit ñu bare dañu nekk di yokk njëkk yi loolu dina xeex ba nga xam ne euh, yokk njëkk yi dootul am loolu lu am solo la nga jël euh, euh, par exemple mu ne pour force covid dix-neuf bi xaalis bi ñu indi teg ko pour mën a gérer mbir dafa am ay comité yu ñuy tëral yoo xam ni ñoom ñoo koy gérer dama yaakaar ni loolu tamit lu am lu am solo la bon ak yeneen i mesures annulation de la dette beeg yooyu ñu demandé nga xam ni euh, euh, xaalis bi ñu lebaloon bu ñu nekk di ñu tontongal naan nañ ko fay ak yooyu yooyu yëpp ay mesures la yu baax a baax a baax a baax lenn rek laa bëgg nag parce que euh, benn mesures yi il faut mu taxaw moom ci boppam taxaw jëm mais nañ ko appliquer ku ko appliquer wul nag tooñ benn ngi noonu ensuite ñaar gis naa ni euh, ci mbirum courant bi ak euh, électricité bi nee euh, classe sociale yi ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole économiquement ñoo gën a néew doole ñooñu ñaari weer du fay courant du ñu fay ndox loolu lu baax la mais dama ni mën nañu yokk mbir yi parce que man bi ma ko bi ma ko doon Euh, pro li ma ko doon proposé mooy mu wàññi électricité bi ak ndox mi pour ñëpp xam nga lu tax kii euh, classe sociale bi nga xam ne dafa ne daf leen di wàññil euh, njëkki daf leen di non duñu fay moom moo leen di fayal ñaari weer mm-hmm. ñooñu li ñuy fay fay na sax barewul parce que ñu ci bare amuñu courant nekkuñu Senelec ñu ci bare Euh, duñu amuñu sax contrat ak waa SDE. kon ñooñu ay robinet lawbe yooyu foofu la ñuy robinet mbedd mi yooyu. Mm-hmm. wala dem jëndi ndox ah ci noonu la ñuy dundee bon waaye dafa am li ñuy wax classe moyenne moo tax loolu laa doon wax classe moyenne jàngalekat yi macha allah en ah, fonctionnaire yi ah, liggéeykat yi nga xam ni mënuñoo wax ni ñàkk nañu waaye mënuñoo wax ni am nañu lu bare. ñooñu li ñuy fay dafa metti moo taxoon ma doon wax bu ñu mënoon a fexe ba wàññi wàññi wàññi carrément pour ñëpp électricité bi wàññi carrément pour ñëpp ndox mi dina tax nit ñi gën a parce que da ngay gis koo xam ne ci classe moyenne bi la nekk ñu koy fayu pour courant bi cent mille ba cent cinquante mille kooku nu mu koy attanee ak situation bii yëpp ni mu ni mu demee kooku xam nga day metti lool ci moom ma bëggoon nag donc ñu généraliser ne dañuy wàññi bu baax parce que xëy na di wax ni kenn du fay loolu xaw ma ndax réew mi dina ko mën a àttan réew mi Sénégal am na ñu koy def yi ay réew yu koy def waaye réew yooyu ña nekk abonné ca seen fa ñu fayee courant mhm. wala ña abonné fa ñu fayee ndox barewuñu comme waa Sénégal Sénégal ñi abone dañu bare wala hmm. enseignant yëpp ak ñaata lañu macha allah yal na yàlla xeeb dool yi hmm. ñaata lañu fonctionnaire yi ñaata lañu nañu wàññil ñëpp nañu wàññil ñëpp classe sociale bi muy wax bi ñuy wax bu fekkee dañ leen wàññil ñoom du ñu la ñu fay du presque du bare non en général ay woyofal la ñuy utiliser wala wala yeneen kii hmm. kon boog ma bëggoon euh, côté boobu tamit euh, président de la république xoolaat ko gëstu loolu buñ ko defee ñëpp daañu nooy parce que kat sutura rek la nit de di euh, di dundee mm. sutura waaye nag ñëpp a sonn ñëpp sonn bu fekkee ne classe boobu kenn boolewu leen ci xamu leen ban coono la ñuy jànkonteel war a fay garab war a yóbbu xale école war a lii war a laa war a nag fay courant parce que bi ñu yokkee courant bi mm-hmm. ah ñoom ñoom ñoom ñoom ci seen ndodd ci seen ndodd la la tegu woon mhm. loolu nag dafa metti moo tax ma yaakaar ni foofu nañu wàññi ñëpp moitié moitié ku daan fay cent mille léegi cinquante mille ngay fay ku daan fay cinquante mille vingt cinq mille ngay fay et cetera et cetera loolu moom moom loolu moom laa préféré moom a gënal. moo ma gënal. Mhm. d' accord alors euh, professeur ba tey ci mesure yooyu président xaalis bi mu annoncé ni moom la koy defee am na ñu am xel ñaar ci disponibilité bi ndax fi mu ne duwaan dugalatul xaalis daanaka amatul lenn loo xam ne mi ngi dox lu mën a may nguur gi mu mu mu mu remplir ay euh, poche am est ce que amuloo yow itam euh, xëy na tuuti njàqare ci xaalis boobu ndax dana yemb ngir ñu mën a doxal programme bi ñu annoncé. naka lañ koy moo tax ma le président de la république day ubbi bëti ak nopp ak lépp di xool ne yar te ndax nit ñi ñu ngi jaarale yëpp ci yoon comité boobu na ubbi noppam ak ay bëtama yëpp ne yar di xool ndax dërëm bi parce que tey dërëm moom lu am solo la mhm. dërëm ci dërëm ci boppam dafa am solo mhm. ñu war ko nag gérer ni tubaab di waxee en bon père de famille ou un bon mère de famille mhm. maanaam E, kilifa bu góor ba wala bu jigéen bi ni mu war a def ba yëf yi bañ a dara ñu ñu yaxanal yëf yi bañ a bañ a koo gaspiller bañ a koo yàq mm-hmm. ba ñëpp am ci mos si mm-hmm. loolu moom mooy suñu kii ma ni bi war nañ leen dugal ci mbir yi ni bu ma nee armée yi mooy takk der yi mm-hmm. na nekk militaire mën na nekk gendarme mën na nekk euh, alkaati ak douanier ak yëpp ku ci nekk nañ ko dugal parce que ñoom niñ leen tàggatee ñoom dañ leen tàggat ci li ñuy wax rigueur maanaam def dangeen war a def nii leen ñu sant nañ ko def kon nañ leen dugal bu baax ci mbiri mbiri euh, armée bi armée bi ñoom war nañ leen ci sóoraale bu baax a baax a baax a baax jox leen ci ay ay ay kilifteef ci biir comité yooyu ñuy dogal parce que encore une fois armée euh, euh, euh, force de défense et de sécurité armée gendarmerie ak police ak ñoom seen ñoom dañ leen tàggat ci rigueur te loolu lañ soxla tey la rigueur kenn warul foof ken warul gaspiller kenn warul randal kenn voilà loolu la loolu la mm-hmm. mais Fatou dafa am loo xam ne tey man dafa nekk sama xol lool lool lool mm-hmm. mani feebar bii président de la république na insiste pour nit ñi takk seeni masque pour nit ñu am masque am na yoo xam ne ñu ngi nekk di koy lijjanti pour ñëpp mën a am masque mais il faut que nit am ay masque parce que bu ñu amee masque bu lay neexee sax yenn saa yi bu ñu bëggee génn tuuti maa daañu mën a génn mhm. ndax am nañu masque te duñu tooñ kenn duñu tooñ seen bopp mhm. maanaam duñu jox kenn bu fekkee ne te kenn du leen ko jox. Mhm. kon boobu masque yi dama bëgg nga taxaw ci lu baax a baax baax masque yi moom dafa soloom dafa am solo masque yi. Mhm. dafa am solo masque dama ci insister nag dama bëgg ñu encore une fois et dama bëgg tamit ñu xool bu baax force de défense et de sécurité yi. Mhm. nañu dugg ci zone rurale yi zone rurale yi foofa. zone e, e, e, zone yëpp mais damay wax zone rurale parce que ñu ngi def sensibilisation mhm. zone urbaine yi dëkk yi dëkk rural nañ fa dugal sensibilisation mhm. sensibilisation yi du dëkk yi taax rek mhm. nañu dem surtout ci dëkk surtout ci dëkk ndax boobu foofa xale yu góor yaa ngi football ba tey ci kalamu ñëpp ñu ngay football ci kalamu ma ni foofu benn bool ñu ba dañu nga toog ci boor ba ci bool ba di mm-hmm. lekk dugal seen loxo ku nekk mm-hmm. mais loolu xew yi nag ci temps wu feebar bii mm-hmm. ma ni foofa ak sax xam naa ni ay gox fii ci suñu suñu suñu dëkk euh, suñu communes yi euh, ci ci ci nga xam ni dëkku taax yi la benn bool ñëpp wër ko walla attaaya bi ñu jël kaas attaaya bi guux def lëwal ñëpp ñëpp euh, naan ñu jëlaat ñaareel bi duñ ko raxas ku nekk jëlaat ko wala buñ koy raxas duñ ko raxas ak eau de javel mm-hmm. ñu ngi koy def ba pare kaasu ndoxu potundaa mm-hmm. potundaa nañ ko sànni potundaa amatul ba feebar bi jeex kenn dootul potundaa te defen dama yaakaar bu ñu bu feebar bi jeexee daal daañu bàyyi potundaa nga xam ku ñëw rek ñu ñëw tension rek teg après këppaat ko nga keneen ñëw ñu jox ko mais mais loolu na génn ci xel na génn ci suñuy xalaat ba mhm. pare ma ni mhm. transport bi ñun ñu ngi euh, euh, dëkk baa ngi def ñu nekk nit ñi euh, ñu jóge ci yeneen dëkk yi bañ a dugg ci foofu je jeexagul nit ñaa ngi dugg ba tey mhm. kon nañ fa dugg xool wax benn ñaar dañu ne de région en région mais nit ñaa ngi jóge Ndakaaru di dem feneen wala jóge feneen dem feneen duñu jaar ci tali bi dañuy dugg ci biir suuf si dugg ci koñ génnaat ci koñ ba yegg fa ñu bëgg yegg hmm. mais yooyu il faut que population ci boppam taxaw ne ñoo lank léegi alkaati yi takk der yi mënuñoo def lépp. Mhm. population bi nañu jar moom itamit. Mhm. bañ yooyu loolu lañ leen demandé nañ ko mhm. bañ. am na solo xëy na fi ñuy jeexalee mooy euh, ñi ngi séentu aussi jamono bu metti ginnaaw coronavirus bi ndax euh, taux de croissance bi déjà dégg nañu li ci président wax yépp te mën naa gën a metti yaakaar nga ne euh, Sénégal lu mu metti metti li ñu am ci jumtukaay bu nu ci sukkandikoo mën nañu cee génn. léegi sénégalais yi dafa war a bañ lenn hmm. ñu koy may jën nga jàngi napp xam nga boo mënee napp yaay dama sa bopp géej napp indi hmm. léegi li ñuy wax développement endogène local may na nañuy def ci suñu de réew sénégal kenn dàqu ko def kenn gënu koo mën dañu am xam-xam bi boo boo demee euh, ku mel na euh, euh, waalo hmm. mais ñu ngay defar ceeb mu neex ba bëgg dee ceeb bu neex a neex a neex a neex a neex ñooñu demuñu sa université mais am nañu xam-xam bi boo demee fu mel na université expertise baa nga fa hmm. sur le plan médical sur le plan technique yëpp nga fa ndax sénégalais yi fi ñuy tibbee fa bitim réew di tibbee dañuy jàng fii ba ne ar dem wala ñoom ñu ñeneen ñi ñëw ñu confronter mën-mën bi hmm. la mën yi américain ba mën xëy na sénégalais moo ko ko dàq le chinois ba mën xëy na sénégalais moo ko fa dàq kon boog li ñu am kas néew nañ ko valoriser nañu valoriser li ñu am kas néew euh, defaru defaru léegi mën nañuy defar nañuy defar suñu bopp garab yi garab loolu laa doon wax les wa hmm. mais ñun mën nañoo defar suñu bopp médicament hmm. entreprise yi ne le président de la république nee na dina leen renforcer loolu bu ko defee day baax mhm. du ñu soxla di importer garab bu ñu soxla rek importer ko mhm. ñun tamit fii dafa am ay am xam-xam gis nga machine yi nga xam ni dañ koy samp nit bu fekkee ni mënul nooyi mhm, mais euh, am na ay expert yu ko def fële à Thiès di ko defar ko dañu yaakaaroon ne bitim réew rek ñoo ko mën kon boog yooyu yëpp daal wax dëgg yàlla ñun amul lu ñu warul a mën lu américain bi mën lu tubaab bi mën lu chinois bi mën ñun mën nañ ko xëy na ñoo ko ko dàq mm-hmm. ndax dañu am sensu créativité ay Séné Sénégalais boo gis artiste la artiste dafay xalaat day xalaat day teg lu rafet lu baax mais il faut que ñu dooleel leen simplement il faut ñu pousse leen simplement comme ça ñu ñu mën a euh, defar ba mu baax voilà. Mhm. jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte daal la ci matinalu réew mi. waaye merci beaucoup waay <laughs> Fatou euh, Thiam Ngom maa ngi euh, leen di ñaanal ñu yend jàmm ak salaam feebar bi daal mhm. vraiment euh, nañu bàyyi na dem mhm. na dem voilà amin na fi génn jàmm génn ci àdduna bi yëpp ñëpp am weer jërëjëf professeur ñu yendoog jàmm